ko indee euh, loolu nag équipe bi ñoo ko def ak équipe bi nga xam ne xëy ne jiitu ji dañ dem euh, dellu seen i kër waaye itam ñu nga wax ne ñu ngi ña sant bu baax a baax mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñu doon bàyyi xel boobu ba tey gis nañu seen ay message gis nañ seen mbégte ngeen fësal ko loolu nag équipe bi la woon xam naa ni may def rek mooy jóg laaj ku nekk euh, nan nga yëgee bésu soxna jaara bi ak liggéey bi nga xam ne Bichri yi liggéey na ko ba ñëpp ràññee leen maa ngi gis Serigne Modou Diouf bëgg fàllu Euh, ma koy laaj moom itam liggéey bi nga xam ne Bichri TV def na ko fii ci Porokhane rek nan la ko gisee. Euh, jërëjëf euh, soxna Soda mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi àndoon ak ñun diirub ñaari fan yi nga xam ne dañu fi nekkoon ngir digtal leen li nga xam ne moo doonoon xew bi di màggal gi nga xam ne moom la jagleel maam Jaara Buso di wayjuru Serigne Touba Xadim Rasul comme ni ko soxna Soda waxee liggéey bi macha allah ñun day mbégte lañ ci am. ndax am nañ yéeg-yéeg de ni wax dëgg fa yàlla raw na kawe na suñu njortu lañ séntu woon te loolu it eh, li ko waral rek mooy ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi muy comité d'organisation bi eh, bi yor màggal gi ak comité d'organisation bi nga xam ne ñoo yoroon forum Maam Jaara bi wax dëgg fa yàlla am nañ ci mbégte moo xam ne bir nañu ne rek lii am na tawféex ba tax na duñ def lu ñoom sant leen di ci jiital ki nga xam ne mooy euh, sëriñ Cheikh Fatma euh, nga xam ne ginnaaw lépp ci ci ay loxoom la jaare ba ñu yegg si fii yëpp euh, yombalal ñu liggéey bi nga xam ne ci léeg-léeg daan nañ am ay jafe-jafe toujours ci envoyé ay données waaye cette fois-ci macha allah lépp. tege na yoon ndax muy dal bi comme fa la ñu nekkoon fu ci nekk dañuy xëccal benn liaison spécialisée ak benn ADSL uniquement rek pour ñu mën a def transfert de données le plus vite possible kon soxna Soda pour nous résumer daal euh, wax dëgg fa yàlla sant nañ yàlla euh, sant aussi Serigne Touba Khadim Rassoul mi ñu boole ci boppam ba ñu mën a bokk ci lii waaye itam sant tout l'équipe de Mame Fatul Bichri ñi teew ak ñi teewut muy bitim réew muy biir Sénégal euh, sant nañ ñëpp daal en tout cas c'est un sentiment de fierté et jërëjëf Serigne Modou yaakaar naa kàddu yooyu am na solo lool moom itam gis nañ ko ci coordination liggéey bu am solo bi nga xam ne def na ko waaye itam euh, ñu ngi ak Serigne Mbaye euh, Niang moom mi nga xam ne jóge na ci itali waaye nekk ci Maraxib TV taxawal ko terewul mu ñëw ànd ak Bichri TV ci liggéey bi ñu lay ziar bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taab ñu leen di ziar euh, te di ñaan yàlla defal ñu tawfeex te ak ndax liggéey bi ñu def tey nga xam ne tey Bichri TV def nañ ko yaakaar naa ne bépp média bu nekk Sénégal war naa jugaat euh, maanaam jàngaat ci xam ne liggéeyal sëñ Touba bu taxawee ñëpp dañoo war a indi lu am ci Sénégal ànd ci liggéey ba ba lépp siiw ndax euh, tey yaakaar naa Poroxaan bu doontoon Bichri TV tey yaakaar naa dina demee na neen ndax euh, yaakaar naa àddina foo dem Euh, ci àddina bi ñëpp teg nañ seen bët seen liggéey bu rafet ak bu sell bi nga xam ne équipe bii def nañ ko tey te loolu yaakaar naa ne bépp média bu nekk ci àddina rek war na cee roy te gën a góorgóorlu te it ñii ñi ngi ñaan yàlla defa ñu tawféex tey séer ñu fekk ay déwén déwén te bu déwénee yàlla gën a def tawféex ban gën cee mën a jàpp mu gën a dox ndax euh, ñun moom liggéey Sëñ Tuubaa dong moo nu ñor kon lii ñuy def moom wax dëgg yàlla euh, yaakaar naa ne bépp média boo xam ne teew nga fi rek war ngaa mën a ànd ci liggéey boobu ànd ceek ñoom ndax sell na rafet na kon nag jërë ngeen jëf loolu rek laa amoon li nga xam ne moom laa ciy wax yàlla na suñu borom def tawfeex ak taysiir jàppale leen defal ñu tawfeex jàppale nu ci barke Serigne Touba te liggéey bi liggéey Serigne Touba suñu borom nangu ko te defal ci def ci lu weesu seen njortu defal ko ci bépp média boo xam ne danga ko ci wut kon asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne mbay yaakaar naa kàddu yooyu am na solo lool ñu lay jaajëfal bu baax a baax yow itam ci sa taxawaay ñu ngi ak Serigne Khadim géey moom itam xàmmee nañ ko ci Bichri TV mi ngi monté sax yaakaar naa moom itam ñu ngi koy ziar di ko wax ne ko lan la yëg euh, fi mu ne nii euh, si bi ñu ginnaaw bi ñu màggalee màggalu poroxaan gi ba te ñu gis ne liggéey bi rafet na macha allah. asalaamaaleykum man moom li wax moom du bëri xanaa sant rek. sant sant soxna jaara di ñaan di ñaan maanaam liggéey bi ñu fi liggéey yàlla nangul ñu ko ci barke soxna sii tëdd barke Serigne Touba jërëjëf Euh, jërëjëf yaakaar na kàddu yu matale na euh, gàtt na waaye am na solo lool euh, ñi ngi nag ak soxna Jamilatu Jaxate moom itam gis nañu taxawaayam bu baax a baax ci plateau yi interview yi waaye itam si reportage yi laata màggal gi ci ay plateau waaye itam ci màggal gi moom itam ñu koy laaj rek lan la yéeg ci bilan bi nga xam ne Bichri TV xanaa def na ko ci màggalu Poroxaan gi. <laughs> salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah euh, maa leen di tuub de sëñ Ndiaga moo nekk fee di ma ñaawal ci ginnaaw caméra bi moo tax euh, maa ngi sant yàlla bu baax a baax sooda di ziyaare mboolem koo xam ne rek bokkoon nañ euh, liggéey bi te buñ na bokkoon nañ liggéey bi duñu wax ne rek ñu ñu àndal ñu yor caméra wala ñu yor reporter. waaye dañuy wax ne ñi nga xam ne dañu doon topp ci télévision mu faatihul Bichri boobu ba léegi ndax ñoom it euh, nelawuñu ñu wax dëgg yàlla ñu ngi ñuy topp boobu ba léegi kon suñu àndandoo nañ ci liggéey bi ndax bu fekkee ne chaque jour yaa ngi euh, di liggéey ñi lay filmer ngay teg te kenn seetaanu ko itam du am njëriñ du am solo te vues yi rek wane nañu. am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci liggéey bi wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen jaajëfal lépp loo xam ne am nañ ko ci wàllu tiyaaba rek yàlla nañ ko bokk ak ñëpp ñiy safoo Mafatihul Bichri waaye di kontaan bu baax a baax ci équipe bi nga xam ne moom la ñu yàlla booleel tey euh, suñu ñaari njiit yu am solo mu di Serigne Ndiaga <laughs> Seck Saliou sëñ Ndiaga moo may kii nii sëñ Ndiaga Seck Saliou ñu ngi koy jaajëfal ak sëñ Modou wax dëgg yàlla seenu déggoo Euh, wane na ne tey euh, wax dëgg yàlla def nañ fi liggéey bu am solo waxumal dara sax waaye jàmm ji ñu nekkee rek fi mu nekk ni maa ngi takk samay bagage waaye gis ngeen sama bët yaa ngi xonk ndax bëggumaa ñibbi euh, wax dëgg yàlla mu neex lool gis nga itam ni ñu leen sonalee ni ñu leen yabee itam ci wàllu waaye ñoom li leen yittee rek mooy nañ naxanteeg ñun rek ba ñu liggéey liggéey bi ndax gis nga duma la ko wax bërki démb <laughs> bërki démb rek Eh, biñ mën a yaay dem ziar di ci kilifa kër ziare dama lànk ne duma fa dem ndax foofa naaju dafa tàng te daa metti te dafa bëri pënd te damay sañ-sañ <laughs> waaye dëgg yàlla sëñ Modou fexe na ba naxanteeg moom jënd na ataaya jënd na meew jëndal ma boisson pour ma xëy rek mën a dem ci ziar yooyu wax dëgg yàlla ak orange waaye orange sëñ njagaa ko lekk waaye ma waxal leen sëñ Modou Diouf bu Belgique nekkewu fi lu dul dànq mu jënd eh, kii mu jënd nuñ koy waxee sax sidéem ak ak sidéem Mali ay yooyu noonu daal la fi nekkee di jënd <laughs> mu yaakaar <laughs> waaw sëñ Modou moom belgi belgien bi <laughs> ndax <laughs> Jamilatu moo ne sëñ Modou belgien la kon belgien bi <laughs> waaw macha allah am na solo bu baax a baax mu mel ne ñu ngi nag ak Serigne euh, El Hadj Cheikh Gueye moom itam gis nañ euh, liggéeyam bu baax a baax si régie bi euh, ñu koy moom ñu koy wax rek lan mooy yëg-yëgam ginnaaw bi màggal gi jàlle waaw jërëjëf soxna Soda ñoo ngi ziar mbokk àdduna yëpp. di leen balaax te di leen balaax te di ñaan sunu borom boole ñu jéggal ñun ñëpp waaw di sant it équipe bu ma faatuwul Bichri TV bi nga xam ne ñoo ñëwoon fii ci Poroxaan ak ñi nga xam ne it ñëwuñu ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen sant ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def di ko rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax ndax Poroxaan gi moom ni ñu koy waxee rek soxna si moom da cee dugal loxoom bu baax ndax lépp jàppandi na ni ko sëñ Modou tuddee sànq nga xam ne li ñu gën a may ñu. jàllale ko en mooy dispositif bi nga xam ne fekk nañ ko fi tax na yombal na liggéey ba benn élément taxawut daanaka direct bi moom nu ñu neex rek lañ ko doon jàllale te gis nañ ne téléspectateurs yi topp nañ ko bu baax ñëpp a ngi koy seetaan fu ne ndax jot nañ ay statistiques yoo xam ne presque ay vingt pays ñoo ngi koy topp di ko seetaan endirect te loolu dañ koy sante yàlla di ko sante Serigne Touba bi nga xam ne moo jàppandal loolu yëpp di gën a xam ne rek lii moom tàmbali la. waaye incha allah fi Bichri TV jëm moom bis bu fa eggee rek dinañ xam ne Bichri egsi na mooy fexe ba bépp programme boo xam ne day am fii ci Sénégal ak bitim réew te doon programme boo xam ne daa jëm ci yoonu jullit duñ ne murit waaye lépp loo xam ne sim dafa jëm ci côté islam rek bëgg nañ di fa def lu mel nii di ko amal en direct ñëpp di ko mën di seetaan fu ñu munti toll ndax nit ñi dañ koy soxla te ñoo ngi ñaan yàlla jàppandal ñu may ñu kàttan ba nga xam ne si fu mu munti amee rek lépp jàppandi ñu dem couverture ko en ñëpp seetaan ko ndax loolu liggéey yàlla gënu koo kawe liggéey sëñ waa gënu koo kawe mooy bokk ci éléments yi nga xam ne dañuy tasaare lislaam fexe ba lislaam gi gën a gën a yaatu ndax télévision yi bëri nañ kenn ku nekk yaa ngi fexe di def sa benn propagande indi ay programme yoo xam ne si du ay programme yu gën waaye fexe nañ ba melal ko noo xam ne si kenn ku ne rek da ngay njëkkantewoo di jàpp télévision yooyu te amaana duñu la joriñ dara ci àdduna duñu la jëriñ dara ci diine boo gisee nag télévision bi si TV moom ni ñu koy waxee télévision islamique o service de waa kër xaalim rasul ndax bu dee islamique rek lépp dafa dugg boo ñëwaatee tamit ci waa kër xaalim rasul lépp daa dugg ndax sëñ Tuubaa moom daa daa njabootee ñëpp bàyyiwul kenn képp kuy islaam rek di wax ashhadu an laa ilaaha illallaah sëñ bool ne na la ci biir kon ci loolu ñoo ngi lancé ñëpp jàpp ci télé yi lu mel ne ut ay partenaire fexe ba gars yi gën cee jàpp ñu gën a liggéey ndax loolu dafay am solo ndax télévision ku ko tudd xam ne na te fi mu ne nii thème bi bëgg nañ dugg ci TNT bi di diffuser comme ñëpp di ko jàlle lool sax dañ koy wax waaye sëñ Ndiaga xëy na dina ci gën a gën a yaatal bu ko defee nit ñi ñëw gën cee jàpp télévision bi dem ndax gis nañ ne contenu programme bi riche na te soxal na mbindeef yi kon ñoo ngi woote ñëpp ñu gën cee jàpp donation yi nga xam ne gars yi ñu ngi koy def ci. Bichri TV boo fa duggee yooyu yëpp am na fa ñu ngi ciy woo mm, bon volonté yi ñu gën cee jàpp tele bi jëm ci kanam ndax boobaa sunu njariñ la njariñu diine la ndax tele bi moom gis nañ ne mi ngi yar ñu bëri ci jamono jii fuñ mënti toll nit ñi ñu ngi ñuy woo naa ñu Bichri TV moom amul moroom ci ci télé yi kon ñu ngi xam ne lii tàmbali la rek waaye fu ñu jëm incha allah bu ñu fa eggee ñëpp dinañ xam ne Bichri egsi na jërëjëf kon Bichri TV ca kaw ca kanam rek jaajëf Euh, jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax euh, El Hadj yow itam ci liggéey bu rafet bi yaakaar naa Serigne Modou Diouf moom moom mi ngi xaw na daanu ndax bëgg na ci soxna jaare yi ñaareel ñu koy ci ñaanal rek. mu am ko si euh, ñuy euh, ziyaare Serigne Ndiaga moom itam ci liggéey bu rafet bi di ko laaj lan la sentir ci euh, màggal gi nga xam ne mooy màggal ak bilan bi ni mu demee nga xam ne daanaka ñëpp am nañ ci satisfaction waaye itam ñu ko suivre bëri na macha allah ci dëkk yoo mën a dem. waaw aouzu billah bismillah barkab Serigne Saliou waaw ñu ngi nuyoowaat bu baax wax dëgg yàlla <laughs> di am mbégte mbégte moo xamante ni moom xam nañ fi mu tàmbalee. mooy bi ñuy waaj pour ñëw waaye xamuñu fu mu yem ndax wax dëgg yàlla maanaam du liggéey bi du du ne maanaam ci ci jamonoy màggal gi mais wàccaay bi rek dèjà gars yi ku ci ne ñu ngi ciy deewoo ko def lu ñu mën di dem def ay émission yoo xam ci wàccaay poroxaan la jëm ay entretien ku ci ne gis na ko yoo xam ci ñoom sëñ Cheikh Isaaxa ñoom euh, sëñ Cheikh Fatma ak yeneen thèmes yoo xamante ni daanaka émission yi sax dañoo demoon ba dañ ko orienté woon ci ci wàllu wàccaayu poroxaan bi kon dèjà loolu yëpp nag moom tawféex la goo xamante ni am na ci bu ñëwaatee nag ci màggal gi gars yi deewoo mën nañu wax ne équipe bi ku ci nelaw tamit sa nelaw guddi weesuwul deux heures de temps booy xool une heure de temps gars yi dañuy génn balaa ndekkil di ñëw sa fekk na gars yi dem seen yoon daanaka gars yi noonu la yendoo ba seize heures mos dara nekkaat ci liggéey bi kon déjà loolu lu ñuy saluer la ndax gis nañ euh, li nga xamante ni moom mooy motivation bi ci am ak euh, dévotion bi nga xamante ni am na ci ku ne ci ñun nga xamante ni li muy bëgg mooy Bichri ku ko seetaan ku nekk gis ci lu am njëriñ loolu lañ ko defee ci direct yi wax dëgg yàlla Elhadj tamit wax dëgg yàlla dispo disponible lool ci côté boobu bëgg faal tamit lu mu mën def na ko bi ñu ñëwee rek daanaka problème yu sew yi ñu amoon lu jëm ci wàllu chute nga xamante ni daanaka poroxaan ku ci ne xam na ne pour nga am ci yenn matériel day xaw a jafe waaye day bàyyi itam yëpp dem fi ba Nioro pour wuti ji ko ñëwaat. yoon bu mujj bi sax daanaka dañ téléphone am dafa wadd heureusement ba ki ko so for nekk ku jub saan ñu ngi koy ñaanal tamit kooku suñu borom gën taxaw bu baax a baax baax te ku ci nekk mën a mën a mën a mën a roy ci moom daal ci wàllu woowu nga xamante ni nga xamante ni nekk na loo xam lu am solo la lu am solo la ci ci ci ci ci ci ci ci ci jëfin daal waaye leneen li nga xam moom la ñuy wax rek moom mooy di santaat cant gi amaana sëñ Madiama am na lu ci def te ñu ngi koy xaar tamit ñu ngi koy xaar maanaam interview moom dispo bu nekkee jàppandi na moom mu duggaale ci day nekk loo xam lu am solo la ndax bokk na ci li li li gën a taaral liggéey bi daal ndax kenn la moom koo xamante ni daanaka mënuñu wax ci moom lu bari. xanaa di soññeeku ci moom ci pas-pas gi mu am ci liggéey Sëñ Tuubaa ndax koo xamante ni da jël sa alal di ko def foo xamante ni juralu la dara xanaa ngërëmal sëñ bi waaw ak ay tuyaaba weer bu ne nga génne ay millions di ci def loo am man dama koy wax sa jour loo am daka ciy def mënoon na def ko ay moromam di jënd ay xaama di jënd lu ne di ko ci def mais talu ko talu ko sax li mu bëgg rek moom mooy waaw <laughs> jamilatu moom daa mën a daa dafa sikk moom <laughs> moom moom <laughs> bu nekkee ci biir émission moom tubaarkàlla waaye bu génnee moom day sànni xeer ñëpp waaye lépp li koy firndeel day jàmm ji la daal kon li ñu doon wax rek moom mooy suñ majama maanaam loolu appel la bu ñuy lancé jëmale ko ci ñeneen ñi nga xamante ni ñi ngi seetaan tele bi te nekk ay soppe ma faatewul Bichri ak ñi nga xamante ni dañ ciy defaroo seen njaboot di ci defaroo ñooñu la ñuy woo ci njëkk ñooñu la ñuy woo pour ñu ñëw maanaam euh, jàppale ko ci yan gi ndax euh, oyoful yen yan gi oyoful kon képp koo xamante ni am nga yéene wax dëgg yàlla war ngaa mën a xool ci yan bunt nga mën a jaar pour jàppale Bichri TV ba mbir yi gën a oyof leen lu ci doole ko mooy li élage wax léegi muy lu jëm ci wàllu TNT bi daanaka démarche yi moom ñi ngi ci woon bu yàgg te ba léegi ñi ngi ci te ñi ngi ñaan suñu borom mottali mbir yi ndax euh, ñi ngi am ay yéene pour lépp jàppandi daal ndax am na ay démarches yoo xam teg nañ ko te bu dakkul ñaan nañ suñu borom motal lépp daal nga xamante ni ku nekk bitim réew di ko seetaan booy seetaan émission di nga mën a woo sax sa njaboot ku nekk fi ne ne leen jàpp leen Bichri TV ci ci canal nangam wala Excaf Excaf wala ci TNT bi gi mel noonu kon yooyu ay mbir la yoo xamante ni wax dëgg yàlla gaa yi ñu ngi ci gaa yi ñu ngi ci pour pour loolu yaatu waaye daal li ñuy wax rek daanaka pour bañ a guddal donte guddal nañ waaye li ñuy wax rek mooy ñi ngi santaat mbokki taalibe yëpp. képp koo xamante ni bëgg nga ci Bichri TV maanaam am na ay numéro yoo xamante ni mën nga ci am euh, képp koo xamante ni maanaam euh, bëgg nga jàpp ci liggéey bi maanaam képp ku bëgg jàpp ci liggéey bi daal maa ngi répété wu waaye am nga ay buntu yoo xam mën nga faa jaar pour jàpp ci liggéey bi maa am na ay numéro yoo xam mi ngi daw koo xamante ni ñaqam la bëgg a feeñal moom mën na génn xaalisam def ko foofu noonu ndax am na ay numéro yu mën a jaar boo nekkee ci réew mi wala nga nekk bitim réew bu fekkante ne nekkoo ci réew mi te bëggoo jaarale sa xaalis tamit directement te nga yor ay boutique wala ay ay ay ay ay magasin wala foo xamante ni sponsor mën na faa kii war nga koo mën a feeñal ci Bichri TV loolu lépp ci ay xeetu jàppale Bichri TV la kon daal li ñuy def rek moom mooy santaat bu baax xam naa kàddu yi xaw naa bari xaw naa gudd tamit waaye mbégte mi am ak yéene gi am ci liggéey bi daanaka dañ dul xam nan lañ koy kiiwee daal nan lañ koy euh, nan nan nan lañ koy fësalee waaw waaye daal bëgg nañ ci gaa yëpp ku ñëw ci màggal gi ak ku ñëwul ndax gaa yi taxawaay bi ñu ci taxaw moom wax dëgg yàlla bii moom dafa dafa dafa jéggi dayoo dafa jéggi dayoo kon xam naa daanaka foofu la ñuy gàttalee kàddu yi rek waaye di santaat yenn téléspectateurs yi nga xamante ni dañuy yëkkati seen téléphone di woote. waaw di dañuy yëkkat seen téléphone di woote chaque jour am na ku ñuy wax soxna Bassin ñaa barki démb rek mi ngi may woo nga xamante ni kuy topp liggéey bi la dem na ba naan émission liifantu te xam naa ne ban na ci morom émission liifantu maanaam buñ bu sañoon maanaam émission bi nekk loo xamante ni luy luy continuer la maanaam ba temps de diffusion bi sax bu ñu ko mënee yokk ñu yokk ko ndax ñoom ci la ñuy jàngee ci la ñuy ci lañu ci la ñuy jariñoo te bëri na ci ay morom waaw kon daal loolu lépp day firndeel rek maanaam programme boo xamante ni Bichri mi ngi koy jéem a teg pour euh, jariñ maanaam képp koo xamante ni euh, kii nga daal koo xamante ni moom euh, ni ñu koy waxatee téléspectateur nga ci Bichri TV. mu mel ne borom kër gi tam gis nañ taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw na ko ci équipe bu Mafatihul Bichri war nañ cee taxaw. waaw kay côté boobu tamit moom lu moom lañ bëggoon a daanelee ndax yombul koo xamante ni maanaam dalaa ubbil bunt yëpp yëg jox la appartement mën nañoo appartement la ñu jox képp koo xam jox na la chambre ba pare ak salon boole ko ak de bain. ba pare say xéwal di ñëw à temps mën nañ wax ne maanaam tawféex mënu koo weesu wax dëgg yàlla ko mais taal bi suñu tuwaa tamit rek la mën a mel daal kon boobu tamit dañ ciy santaat bu baax di ko gërëm di rafetlu wax dëgg yàlla taxawaay bi nga xamante ni moom am na ko ci ci ci ci liggéey bi ak yéene gi nga xam ne am na ko ci ñun ndax barki démb rek bi bi ñu jógee ci exposition bi di ñëw mi ngi ñëw kii te mag bëgg fàllu ci biti di ñu wax ay mbir yoo xamante yu am yu am solo la yoo xam ne bu ñu fa tegoo amaana maanaam lépp dina kii loolu xam kon xam nga kuy génne ñaxam ak ay xéwalam di la jox ba pare di la conseiller ci looy doxal mbir mi kon kooku moom fay ko du yomb daal xam naa li ñu ci mën a bëgg a wax lépp tamit day day dafa kii dina xaw a bari ndax euh, yéene guñ am moom moo ko waral rek waaye ñi ngi jégalu bu baax a baax ci ñëpp rek di santaat bu baax soxna Soore ñu ngi lay sant ci liggéey bi ni ngi koy defee nii ak ak personnel bi yëpp tamit ñu fi nekk ak ñu fi nekkul ñu ngi leen santaat bu baax ñoom sëñ maam Thierno ñoom sëñ Koso nga xamante ni dañoo dagg seen yitte yëpp Mouhamed Fall ñoom dañoo dagg seen yitte yëpp ngir ñëw rek bëgg ànd ak ñun ci liggéey bi kon loolu mbir la moo xamante ni wax dëgg yàlla amuñu ak payam kon daal ñu ngi jégaluwaat di gàttal kàddu yi xam naa dañ lay bàyyi nga wéyal interview bi rek ci diggante bu fekkee am na luñ ci faay boo ñu ko laajee rek ñu mën koo yaatal. waaw waaw man de dinaa la boole tonton Madiame si paani ndox la jar na boole daal <laughs> ñu ngi nii ak euh, Serigne Gora Diallo moom bi nga xam ne liggéeyam tam am na solo mu féetee Diourbel euh, ñoom itam mu koy laaj rek lan la yéeg ci ginnaaw màggalu Poroxaan gi bi mu jàllee. asalaamaaleykum wa rahmatulah soxna Soda ñuy ziar euh, mbokk yëpp. ñoo ngi siyaar mbokki téléspectateurs yëpp di leen masawu di leen ndokkeel aussi ci topp gi ñu topp ma faatal Bichri Euh, tey day di leen jégglu nag parce que xam naa ñàkkut am nañu de technique boo xam ne peut être gis nañ ko loo xam ne neexu leen mais ñu ci jégglu lu ci xam ne lu jub rek suñu borom la tey ñaan ñu borom dafa ñu fekkee ko ay déwén yu bari ñu ñaan lépp luñ fi ñu ñaan lépp luñ fi liggéey rek lépp lu ñu fi am jëlee ci njariñ rek yaa nañ ko bokk ak euh, jullit yëpp ci barke Sëriñ Tuubaa xarim sama solo dañoo kontaan ba mënuñu wax euh, mënuñu wax daal mais kontaan nañ sincèrement kontaan nañ baax a baax a baax a waaw macha allah mu mel ni borom kër gi nga xam ne nii moo ñu dalal fii mi ngi nii ñëw na ci biir ah, ngir waxtaan ak ñun moom itam mu nekk ku koo xam ne eh, man personnellement dafa ma impressionné ci ak taalibeem ndax koo xam ne bu ñuy defar moom mi ngi ci biir ku ñëw ci kër gi sax doo xam ne moom kër gi da yaakaar ne ah, moom dafa nekk ci ñi fiy liggéey añ yi da ngay gis mu toog di ko séddale gan bu ñëwee moo leen di dem di leen jox ndox ñëw di leen nemmeeku ah, defaral ñu loo xam ne daal ñun kawe na suñu njort ci ak taalibeem ñu war ko cee jànge bu baax ñu koy ziar moom bu baax a baax di ko nuyu. waaleykum salaam soxna si eh, man Massamba Niang Porokhane tur woowu jóge si sëñ Mouhamadul Mountakha bu Cheikh Ahmadul Bachir mi nga xam ni moom la Serigne tubaa confié woon Porokhane gi mu wax ma ca pencum daaru minam Massamba Niang Porokhane man la yàlla def ma nekk jawriñu kër gi. liñ ci jublu nag mooy dañ fi mas màggal si mu nurul lu ñuy waxee tumuranke ndax fu ñu dal ba mën fa fanaan ñu ñaan soxna si si ni ko fas nañu yéenee tabax fii maakaan mu nga xam ne bu doon mbaar sax ay daa ñu ànd ak ñoom ñëw fii te fi barkeelu si soxna si ñaan googu nangu sa déwén sa ñu fa fii def ñaari nekk mu nekk 30 sur 30 tey jii ci résumé ñu tënk ko rek am nañ ci def naa vingt quatre chambres te yëpp am na toilette gis ngeen ko loolu nag pas-pas rek moo ko waral ak li sëñ Mountakha di wax yitte moom it mu dimbalañ ci lool ak Cheikh Mamadou Bachir ñu koy wax sëñ Bachir Porokhane di jawriñ gi nga xam ni sëñ Moustapha Bassirou ku tedd ka moom la ko. way juróom wa sëñ Bachir tegoon ci loxoom dëkk bi mu nemmeeku ko mu jafe lool ba mu àgg ba àgg si fii bi ñu gisee nag jafe-jafe yooyu yëpp ñu ni daal même kër gañ doon tabax Touba yàlla nañu yàlla jégal ak sëñ nañu taxaw liggéey fii pour am fu nga xam ni taalibe yi nañ ñëw di fi màggal Mamadou Bachir Poroxaan baaxee ñu daaw ni ñu fas nañu yéene ren maison de la presse yëpp ñu indi ci kër gi gannaaw ci bunt bi la te yaatu na boo ko defee seen liggéey mën a yomb ci dugg bee génn bi loolu moo waral tax di sababu ñu tabax kër gi fii ma ànd nag ak samay xarit samay mbokk yi nga xam ni kii Serigne Saliou Mbuy mooy le premier président du daayira des étudiants mourides ñun bañ koy formé en 1976 du hasard nag parce que dañu juddu ci mbir mi màgg si suñu way jot nekkoon taalibe Cheikh Massamba Mbacké di rakku Serigne Touba Khadim Rasoul ñu bokk ci waaye yoon wi amul juddu amul leneen amul rawante dafa mel nañu taxaw si benn garab di ko wër ku ñëw du xam ko fa jiitoo keneen waaye pour wal leen ni leen loolu tradition la si ñun ak Serigne Madické Seck mi bokk si ñi nga xam mooy représentant jawriñu daayratul mubaaraka li ahlil xadimi bila musharaka bu Serigne Ablaye Xadim Saar Ndar daayra boobu nekk fii di daayra yi fi gën mag itam jiitu si dëkk bi ak El Hadj Umar Thiam demoon représenté ñun daayra des étudiants mourides aux États-Unis à partir de 1990 def fa vingt ans nekkoon fa responsable coordonnateur du daayira des étudiants mu ni bañ ko formé ñun ba mu jeex ñu continuer seeni Saloum it dem yokkale ji mission foofu dellusiwaatati ñëw ñu dajalewaat def mbooloo itam di nekk les anciens loolu moo indi is bu tarxiya ñun ñii la ñooy les onze premiers dans ces quatre la loolu mooy histoire bi. macha allah ñu ngi lay jaajëfal rek équipe bu Bichri TV yëpp daal ñu ngi lay sant bu baax a baax sant goo xam ne amul àpp di la gërëm bu jërë ngeen jëf soxna si di ñaan yàlla rek lépp lu luñ fi ñaan ab lépp lu nga xam def nañ fi ay bernde ndax Serigne Saliou dafa wax ni ab cant day nekk ñaan ak ay bernde yàlla nañ ko yàlla nangul te mu bañ a ànd ak benn puukar ak benn beew te mu dolli ñu xéewal yu yaatu ba nga xam ni fii dana ëpp lii fii nag du sax suñu kër ñun mu ñu moom dañ ko déjee def ko àddiya soxna jaariyatullaahi ba suñu njaboot yëpp yëg nañ ko ñu yokk itam ba ci gannaaw waañ wee mu nekk 30 sur 60 di ñaari kër pour loolu ñu koy wax si télévision yi nañ koy waxee woon daaw seeneen télé ba mu siiw ñi siiwal ko ba ñëpp dégg ko ba nga xam ne ëllëg si suñu njaboot sax dañu xam ne fii kër Sëñ Tuubaa la ndax suñu waajur daf ñu waxoon àddina bi ku ne war a ko fooj ay rëdd ñu jàpp ni fii ci rëdd yooyu la bokk jërëjëf. jaajëfal bu baax a baax yaakaar naa ne ñu ngi en direct ci Bichri TV ñu ngi ñuy seetaan un peu partout waaye rawatina si États-Unis gi nga xam ne suñu PDG fa la nekk di émettre foofu moom itam mu ngi lay eh, jébbal santam bu baax a baax a baax ci liggéey bi yi nga xam ne def nga ko waaye tam yaatal gi nga xam ne defal nga ko équipe bu ma fa fii ay kilifa Mbàkke Mbàkke dañ fii dal ndax sëriñ eh, soxna ummi Touba bu sëriñ lu Mbàkke appartement ma nga ne waa guy mbind bu xalifa bi ñoo ngi fii si gannaaw bañ nañ ko ba démb ñoom dañ ko baptisé poroxaan guy mbind appartement ok jërëjëf waa kër sëñ ma Massamba Mbacke ñoo ngi woon fii dend ak yéen ak sëñ Abdou Bakhi Mbacke ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi ci kër gi mënuñu lim yëpp pour bañ jël seen temps yëpp ma bëggoon nag sëñ Saliou bu bala ngeen di tëj mu def si ñaan nga accompagner ko ak bu ndaw jërë ngeen jëf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 لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجاهرا في البلاء يا صمد مدلنا الإسلام والكفر محا وبالنسيعة لي كل سمحا يقود بالصاهر والباطن من أتاه لله في كل زمن خدمته عن الهيوب أصحابات wal istixaamatan wa saafan wa abad li baana kawnul mustafa raisa li baana li baana li baana kawnul mustafa raisa li kulli man xatidilo rawsa xadama taawu fawqa kulli raxaba منه سغار الكر قر من قبا محمد مثاله لم ياتي فيما مضى وابدا لا ياتي ثبت أن ربنا لم يرد مثل الله فمثله لا يرد لا سعادة له البراء يوم على صولة صفا هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل براه بديع من خير الجمال وسأله خدوس عن خير الكمال كون النبي المنتقى محمدي xayra alwara muxtaar inda samadi noon yaa ko génne ne gi mbàkke baare sandarma sanko na nde ndar lay jaare moom mbooloo mi ngeen baal ma loolu mënta ñàkk ngir kii sunu nijaay la bokk sunu yaay ndey ak baay ñu fi toog ñëpp sunu yaay nijaay lañu te du mu judd rek fekk leen seen ànd bi mu rafet lool ñun ñu nekk seen jarbaat di yëngu ci xasaay di nga xam ni demu nu fenn xooluwuñu fenn fii la ñu am ndax poroxaan à part sunu kër sëriñ si nga xam ni moom lañ fi am sunu kër nijaay ji rek lañ fi am. kon dafa jaadu bu dee moom sëriñ Touba dafa am lu mu ko cëral maam jaara am lu mu ko cëral a ah ñu ñu yëngu ci ay xasida di jarbaatam baatam lenqe mu bokk sunu yaay ndey ak bàyyi kon day jaadu lu mu nekk ñu nekk ca lu mu lépp loo xam ne rek ñu ngi koy ñaanal te mu yéene ko ci taalibe yi yéene ko liggéeyal maam jaara yéene ko liggéeyal taalibe yëpp ak jullit ñëpp sunu borom defal ko lu kawe njortam yéen tamit ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. ñaan seen borom suñu borom seen taxawaay yàlla na yàgg seen télé bi yàlla na koy dégg fi ñuy dégg kawe yu kawe télé yu kawee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke borom tubaab dina ngeen jëf loolu la ñu am dinañu wax. macha allah sëñ bi yaakaar naa li nga xam ne def na ko ci ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko am na solo waaye tonton Madiama mi nga xam ne mi ngi foofu ci Denver aux États-Unis nee dafay dugg en ngir wax ak ñi nga xam ne ñooy Mafatihul Bichri waaye sëriñ bi ñu dalal xam naa ni def rek mooy dalal ko dugal ko mu def participation en direct fii ci Poroxaan euh, te nga xam ne depuis lundi si guddi ñu ngi fii di amal liggéey bu am solo waaye ci yaatalu sëriñ bi nga xam ne moo fi toog euh, ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax xam naa ni ñuy def rek mooy régie bi paree rek ñu wan ñu Serigne Madiama Mbaye mu dugg indi participation bu baax a baax. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi euh, maa ngi leen di ziar bu bu baax a baax a baax maanaam xam naa rek euh, fi ngeen daanele rek fa laay jéem a jéem a jëlee maanaam di di sant comme ni mu ko waxee rek ci audio bi maanaam xam ne yéen ñi nekk foofu. Euh, daaw leen gis ampleur bi maanaam ni ni ni euh, liggéey bi euh, amee solo lool lool lool. waaw sëñ Madiama Serigne Saliou Mbow mi toog fii sax wax nañu ni sa xarit la mu ngi lay ziar bu baax. partager statistiques yi ak moom benn bis boobu rek Bichri vraiment seetaan nañ ko ci lu ëpp vingt pays. waaw waaw maa ngi tuub maa ngi tuub dañ ma doon wax ni sëñ Saliou Mbuub mi ngi may eh, ziar waxal leen waxal leen ni ko ma maa ngi ko koy delloo sama sama mag la sama lépp la wax dëgg yàlla ku day day day day taalibe murit boo xam ni yéeme na barke Sëñ Tuubaa donc ñu di ko santaat bu baax a baax a baax a baax moom tamit eh, ci jàppale gi ci conseil den ba gii ma nekk yàgg na fee ñëw di fi def ci ay euh, conférence ci Sëñ Tuubaa donc ma yeggale rek euh, cant gi moom dama naan vraiment am na fu muy tàmbalee waaye amut fu mu yem su ma doon lim dinaa juum ba tax na dama naan ñépp rek képp koo xam ni jógal nga walla xëyal nga Bichri bu doonte benn seconde sax sak fay mënuñu koo am donc wax dëgg yàlla lii ngeen def kawe na lool lool lool lool te ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax tey jii bu ñu amoon adduna ak li ci biiram sotti leen ko barki suñ tuwaaru caaxaan suñu xol dafa sedd lool parce que yéen dong nekku leen fa woon comme presse mais lii ngeen def dafa yéeme lool ma ci profiter tamit pour lancer un appel ci ñi nga xam ni xañ na ñooy suñu njiit ci yoon wi euh, di euh, sëriñu murit yi di leen wax ni Bichri day wax dëgg yàlla dañu ni la télévision islamique au service de waa kër Xaadim Rasul ñu leen ñaan loolu yéen ngeen mën ñoo jàppale ba ñu dëggal ko parce que li ñu gis mooy képp ku ci am cant walla nga am ci màggal yaa ngay dem dàqe ji TFM yaa ngay dem dàqe ji yeneen télé yu siiw yi tey bu ñu amee événement yu mel nii ñoom ñëpp ñu àndandoo dummoo yi leen gisuma fa kenn ci ñoom ñiñ fa gis ñëpp amuñu benn moyen ay ndaw lañ yoo xam ni liggéeyal Serigne Touba rekk leen ñor mën naa cee lim waa tuuba Vision bu Serigne Khadim Seck di jàmbaar joo xam ni foo nat njàmbaaram rek weesu na ko kooku daf ma leer ni ku ko joxoon ni moyen mu mën a représenter yoon wi yépp ci wàllu média gis nañ fa tamit waa istixaama ñetti yooyu rek man laa doon gis donc franchement ñu naan dafa jot instant yi nii ñun ñu am suñu euh, fulla xam ni lii ñu soxla yeneen média yi yëngatu ci wàllu àdduna duñu ko defal duñu ko defal tey jii bu ngeen fa soxla woon lii ñu def nga xam ni ci li ma jàpp def nañu vingt deux heures vingt deux heures laa la wax ci diggante deux jours yi vingt deux heures direct loolu euh, leer na ma ne man ñeneen ñi xalaat xalaatuñu loolu sax quoi même bu fekkoon ni fay nga leen ay millions it ay extrait lañ lay leen ñuy lancer un appel donc à nos guides yoon wii ñu jàppale ndaw ñi jàppale télévision yi nga xam ni am nañu fit wu toll ni rag ñàkk ragal féete jël lenn ni la télévision islamique dafa amagul woon Sénégal ñëpp li ñuy def mooy généraliser bañ kenn mer maanaam topp ci ay affaire yoo xam ni euh, euh, sàmmul diine ji Bichri nag wax dëgg yàlla Euh, ba mu ñëwee ba léegi ak yéen gars yi ci ànd yépp wax dëgg yàlla ligne de conduite bi benn la lu dul lislaam duñ ca def duñ ca yàq te sunu yoon newu ca ku bëgg ànd ak ñun ci loolu alhamdulilah ku bëggul ànd ak ñun ci loolu it ñun ñu jàpp ci yàlla waaye amul lenn loo xam ni danañ ko moneyee ñun ngir am popularité wala nit ñi bëgguñu te loolu nekk na loo xam ni neexul sunu borom. duñ ci jaar insha allahu rabbi donc ñu di leen delloo ñaanal euh, yàlla mi dara tëwul kàttanal leen yéen ñëpp barki Sëriñ Tuubaa maanaam daf dafa leen ay tawféex yu yaatoo yaatoo yaatu ba coono boobu ngeen onn ci màggal gi suñu borom daf ko ay xéewal wesaare leen ko wesaare ko yit seen seenu njaboot euh, parce day loo xam ni am na solo man intention wala boog sama mébét mooy ñun ñi ci nekk mu ñuy ay mag di ay ndaw yàlla dimbali ñu taxawuñu ba suñuy hmm. doom wëlbatiku yor Bichri gi yeggale ko foo xam ni ñun xalaat wuñ ko woon loolu leer na ma ni lu mën a nekk la barki Sëriñ Tuubaa ma di leen ñaaxaat bu baax a baax a baax te ngeen xam ni bokk ci lii barki Sëriñ tubaa du hasard day ku sëriñ bi tànn tàbbal la ci nga bokk ci képp ku ci nekk boo demee ba tàmbalee yëg yeneen affaire wala nga bëgg a def leneen suñu borom ci boppam moo lay sempi ci li jox ñu ñu yeggale di liggéey donc wax dëgg yàlla xam naa ni wax ji mënuma ko yàggal parce que yéen a ngi waaj pour delluwaat ca dëkk ba ñu di leen ñaanal yoonu jàmm continuer di leen sant bu baax a baax a baax. Euh, wa sëñ boobu tamit euh, sëñ ñëng moomu ñu dalal wax dëgg yàlla ñu di ko sant bu baax a baax a baax a baax parce que dalal ay gan yombul te lii ñu fa am yaakaar naa ni ba ñu dalee màggali ba léegi gisuñu ko fenn donc ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax sëñ Cheikh Fatma it mi nga xam ni moo jàppandal wàllu élève gi mënuñu koo fay mënuñu koo fay sëñ Isaaxa Mbàkke mënuñu koo fay sëñ Muntaxa Mbàkke mënuñu koo fay wax dëgg yàlla gis nañu ñoom ni ñu jàppee ci liggéey bi xañ na nag kilifa dafa am meneen lu muy waxee dañoo bokk yilif ñëpp mënuñoo par parloo di ànd ak kenn parce que àdduna ci boppam euh, njaboot boo ko yoree da ngay tëdde ndey ji seex loolu comprendre naa leen ci bu baax a baax baax te ñu ngi leen koy sante mais encore une fois rek ma renouveler sama appel boobu ñi koy seetaan ñëpp xam leen ni li ma koy waxee rek Bichri is free to watch but but it is not free to produce maanaam Bichri ji tijji nañ ko képp ku mu neex seetaan ko waaye nag lépp li ngay seetaan xamal ni kopparay tax mu mën a am xale yooyu ci nekk jàmbaar yi nga xam ni ñoom lañuy ñuy àndal dañoo war a am lépp lu ñu bëgg ci àdduna parce que dañoo nekk ci toolu sëñ Tuubaa te xañ na jamono yi ñu nekk seen wërsëg ci yàlla euh, euh, suñu borom mi nga koy awale ci bis wi donc ñuy ñaan ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi ngir ñu mën leen a jàppale bu baax a baax a baax teral leen comme niñ ko yeyoo parce que foofu ñu nekk de équipe bi ku ci dul sëñ Moodu yaakaar naa ni sa 30 matagul donc lu nekk waroon nañ ko mën a fi ci wàllu caaxaan te dañoo bàyyi lépp dëddu àdduna complètement jublu Serigne Touba jublu diine lislaam parce que mission bi ñun lenn la mooy wis wesaare l'islam jaarale ko ci leen Serigne tubaa parce que dañoo doy sëkk barki Cheikhul Khadim du caaxaan donc ñu ngi leen di encore di leen ñaanal di leen sant xol yi sedd na lool mënoon naa toog fii di wax bés uba te du doy ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax sëñ boobu tamit nga xam ni moo jóge Italie nekk Maraxib TV ñu koy tàllal loxo moom tamit te xam ni euh, tool bi benn la xañ na waar yee wuute mais lépp lu ñu mën a jàppalante rek xamal ni ñun pare nañu pour ànd ak bépp doomu aadama boo xam ni diine ñor na ko waxuñu rek murit wala tijaan parce que sëñ Siiri Moxtaar ci boppam moo ñu ñaan maanaam bëggatula dégg waxi tarixa ñun nag ci tànkam yooyu mu ñaan loolu mu wax kese la ñuy jaar bu fekkee ni am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi yëngatu ci leneen te mu nekk ci diine ji ñu bëgg ñu ànd ak ñoom tàllal nañ leen loxo maa ngi santaat bu baax a baax a baax xam naa xol bi sedd na guy barke Sëriñ Tuubaa xol bi sedd na guy waaw soxna si euh, moom moom xam naa ni muy nii day jéem a làqatu bëggoon na ci feeñ am lu mu ci wax waaye nee na daa ragal faa daw na kon daw na daaw naa <laughs> amul benn problème murid daal sant nañu baax a baax na ñu baax a baax kon xam naa ma joxaat leen antenne bi rek jërëjëfati jërëjëfati. jërëjëf Serigne Madiama Mbaye euh, foofu ci ah. Denver ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom itam ci kàddu yu rafet yooyu nga xam ne indi na ko ci Mafatihul Bichri liggéey bi ñu def waaye itam cant gi nga xam ne jagleel na ko euh, suñu papa ji nga xam ne moo ñu dalal fii ci Porokhane ñu jaajëfal ñëpp rek ñi nga xam ne ñu doon teewlu ci Mafatihul Bichri international di leen ñaanal bu baax a baax di nuyu bu baax a baax soxna ma Madiama boobu nga xam ne moo nekk foofu di ñu teewlu moom itam di ko ñaanal tawfiix ak taysiir di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan ci mafatihul bichri international di leen wax jàngeen jëf ba beneen yoon incha allah Aqui <laughs> vai Mustafa Salim. Wallahi. rahmatullahi wa barakaatu ok dégg <laughs> nga ñaan andu andu walilladina qad taallaqu biyahudan bihi li xayrin nutlaqu iyaaka nacbudu wa nastaciinu fa innaka almacbuudu walmuciinu dalaltanaa bika calayka yaa raqiib yaa man bihi yanxuu lahu kullu naqiib